salaamaaleykum suñu mbokk internet ci Dakar kontaan bu baax a baax ci topp bi ngeen ñu topp Ousin ngeen di àndal ci seen rubrique reportage ñu ngi fii tali bi mag war a waxtaane mbiri Ousmane Sonko suba député yi dañoo war a daje ngi dindi li nga xamante ne mooy mbalaanu kiiraayam sénégalais yi ban gis-gis lañ ci am loolu la ñu bëgg a waxtaane laay topp moo ñu dem léegi-léegi xool sénégalais yi seen xalaat man daal li ma gisee wax dëgg yàlla Ousmane bon nit la koo xamante ni moo nekkoon deuxième position fii Sénégal ñu am ci moom yaakaar tamit yaakaar ko trop quoi mais gis naa ni daal vraiment vraiment daal xaw na def erreur quoi te et dafa def erreur daal. ban gis-gis nga am ci mbiri Ousmane Sonko bi taxawaayu député yi. waaw Ousmane Sonko amu ñun ñun Sénégal yi quoi ñun ñun Sénégal yi amuñ ci benn gis-gis gis bi nga xamante ni mooy su ma sa yoon quoi lépp lépp lépp nañ ko bàyyee ci yoon xam nga yoon def liggéeyam quoi nit ñi nëtër ci comprendre nga parce que affaire bi dafa secret dafa sew. erreur bi mu def mooy mënoon na def massage euh, domicile wax dëgg yàlla mënoon naa def massage domicile. o kër bu fekkee day maase mu woo ndaw si ba biir këram bu ko woowee bon lépp lu muy mën a def bu ko ci ay jabaram ñu kon erreur bi du am daal maanaam te yàllaa xam ak diggante moom ak ndaw si mais bu fekkee tamit dañu pare pour dindi marañu kiraayam tamit peut-être tamit loolooy yoon quoi te ñoom tamit seen seen seen droit la ñu appliqué peut-être tamit loolu tamit moo mooy mooy li mooy li ko permettre mooy moo tax mu mën dem pour wuyu ji taxaw ci juge primo tamit wax dëgg yàlla franchement parler man dama condamné ñi nga xamante ne ni dañuy dem di def massage ci kudul seen euh, soxna daal. parce que ku nekk ak liggéeyam grand. waaw mais l'islam moo njëkk a loolu moo tax. bu dee pour faju l'islam dafa mel nangu na ko. pour faju d' accord l'islam mën na ko d' accord mais daal li gënoon a wóor mooy que ni massage domicile bi moo gënoon wóor. te loolu laa gis quoi te pour pour mu dem foofu noonu il faut ñu dindi loolu noonu. mais taxawaay député yi waa député yi tamit peut am na ñoo xam ne tamit seen liggéey la ñuy def ñi tamit dañuy xool li nga xamante tamit euh, kenn ku nekk pouvoir bi nga nekk quoi mais man li ma gën a gisee nag li ci ëpp solo mooy ñoom seen liggéey la ñuy def dañuy def waaw na yoon quoi li nga xamante ne moom la ñu war def la ñuy def quoi parce que Ousmane Sonko tamit euh, peut-être xam naa tamit njëkkee woo ko fi te du ko fi mujjee quoi loolu la nga xam boo may maase da sama ñaari jabar yëpp dañuy toog am na nu muy demee sax ma woo sama doom mu ñëw toog nga xam leneen du si am loo xamante ni day naan dëgg la du dëgg waaw loolu daal laa gis man. waaw loolu laa foog quoi te fi mu fi mu jaar nii bu nekkoon keneen tamit fan la ñuy jaar pour dindi pour dindi pour dindi loolu noonu laa gis quoi. ndax àdduna amul solo te yàlla def na ni bu fekkee lool dan ko nar a yëngal mun nar a indi ay coow ak ay pëccoxoo ci askan wi réew mi te ñun tal nu dul fexe ba corona bi jóge fi. waaw li bëgg daal mooy ñu jéem a seet nu mu gën a nu mu gën a jaadoo rek ak nu mu gën a jekkee rek. ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi Ousmane Sonko ci jàmm ak salaam. daan xam nga xalaat bi moom nice ah xam nga lan la mooy maanaam dañ koo tooñ yaa ngi dégg wax bi amul preuve. wala si noonu àtte ko ci yoon daal waaw bu fekkee waaw bu fekkee dañ ko war a tëj bon ñu xam ne lii moom moo tooñ ñu denc ko bu fekkee affaire politique da cee nar la ñu bàyyi ko te yàlla tax ndax moo gën ñu fi indi ay coow. tax nga dañ koo tooñ. non dañ koo tooñ parce que lu mënul nekk lu nekkut. nekkul ko waa lu nekk nag nekk na am déet parce que xam na ñëpp xam nañu lu fa demee barke maam Thierno Fary ah. ndax sénégalais yëpp fi mu ne nii euh, jàpp nañ ni affaire bi dafa am ay complot ay ay ay ay yu kenn xamul yoo xam ne si da ngay réew ta sax kon en justice bi daal war na mën a leeral mbir mi nan la mën a deme ko quoi ni mu demee dëgg-dëgg war na koo mën a leeral. waaw loolu donc laa amoon ci lu may wax bon yàlla na yàlla def euh, jàmm ci Sénégal bon di ñaan yàlla Covid bi jóge fi ci salaam daal waaw salaamaaleykum wa rahmatullah soko mom moom dañ ko togn te mo wara a jël réew mi ñun mom essay ni xalé ñun ni préparé nañ pour wotal ko ya ngi dégg Macky Sall na bàyyi nit ñi ñu am firu dom am jamm ak salam palaayam